conseil constitutionnel sàkko ci autorité compétente yi ngir ñu amal jongante falum jiitu réew mi ci nu mu gën a gaawee boobu ba léegi ñu bëre di waxtaane bés bi nga xam ne ni moom la ñu war a amal yooyu la jongante. président Macky Sall dafa war a def élection balaa le 2 avril 45 jours avant la fin de son mandat au plus tard et 30 jours euh, au plus tôt dafa war a fixer date. bu ñu sukkandikoo ci Paul Dominique Correa bokk ci plateforme aar sunu élection. ba tey mën nañoo amal boobu la jongante balaa mandat bi ñu nattal njiitu réew mi di jeex. donte euh, président jëloon na décret boo xamante ne conseil constitutionnel dellusi na ci pour ñu changer ko li ñu yaakaar mooy ba léegi fi ñu toll mën nañu tenir élection ci délai yi pour que euh, fin wu mandat président Macky Sall di 2 avril. mu mën a fekk ñu am président bu bees boo xamante ne jaar nañ ci yoon bi ñu war a jàpp fal ko. mu di gis-gis bu mu bokk ak du Jiite ndax maire bu Thiès Ouest bi jàpp na moom it élection yi ba tey mën nañ koo amal ci calendrier républicain bi. au plus su ñu bëggee élection bi am mënul weesu 3 mars parce que diggante trois mars ak 2 avril mooy 1 mois mooy 30 jours yi kon ñu ñaan ko mu baral waxtaan yi waxtaan ak peut-être xëy na candidats yi nga xam ni ñoo war a bokk ci élection muy 20 candidats yi ñu fixé date bi tey le 19 au plus mën nañ dem campagne bu ko defee nit ñi. continuer Sénégal euh, jëm ci kanam. njiitu réewum Sénégal génne woon bataaxal ni nangu na dogalu conseil constitutionnel teg ci di woowaay politique yi ci waxtaan bu ñu sukkandikoo ci Dominique Correa ak Mamadou Djité yooyu la waxtaan faaw ñu teel koo sumb bu ñu bëggee jongante yi mën a am ci nu.